bal baa ngi waa seen TV waa seen di waxal waa seen TV dimbali leen jàllale lu ko Macky Sall gaal yaa ngi diig gaal yaa ngi tëmb gaal yaa ngi te gaal ngi tëmb gis bël bi dimbali leen nu waa seen TV leen nu bugaan kii naka Macky Sall gis cinq gaal diig na si bël bi xoolal ma lii rek xoolal ma lii gis ngeen gaal yi gaal yi dañu bëgg génn mënuñoo génn gis ngeen mool yi ñoo daj dimbali leen mool ay xale ndaw ay ndaw rek ay a ay ma Sall gis ngeen de bal waangi ni ga gaa yaa soxla ñu won gaynde yaangi ni lay léegi yaangi ni ma nii Macky Sall askan bi dimbali askan bi Macky Sall dimbali ngir yàlla ñu lay war a suul yi ay waay na saar gi nax nañu ba dem nag nax nañu ba dem te sax suñu yaakaar pukul Mansour lagi. moom kenn waxatu waxam mo ñu waa Ndar moom ñun bëggatul ko bëggatul ko sax gis ñu moy ñu ba parce que bàyyi mooy yàgg wallaahi gars yi bëggatul ko gis maanaam bëggatul nga gis. Mansour Faye. wallaay Mansour Faye. fan leen ma fan leen ma man. gars yi bëggatul nga. fan leen ma. gis nga gars yi seen xol neexul. seen xol neexul. mool yaa ngi nii seen xol neexul koo su xool kanamam bi. koo su xool kanamam bi meer na si nekk. wallaay bëgg noo rey ay corona. corona amul fenn. corona amul gëmuñu corona ñun moo ne. keroog suñu waajur yi moo ñu tax a jóg. billaay moo ñu tax a jóg xool naw lay. xoolal naw lay Macky Sall. ndar sonn nanu. billaay ndar sonn nanu xoolal. xoolal Macky Sall li fi nekk say élément wallaahi ñii yëpp say élément noonu ñii yëpp lañuy dem géej gis ñii noo ngi si naqar ñii noo si bànneex gis ngeen di ma liggéey yàlla troisième mandat nga am ñu moom soxla na ko fi soxla na la di ngir yàlla xam naa dem léegi nii naw la yaa ngi nii ay Macky Sall di ma liggéey yàlla waaye di ma liggéey yàlla Macky Sall lépp lu ñu wax ngir di ma liggéey yàlla naw la eh Mawal mënul garaat Mawal amul ko ko dimbali gaa yaa ngi nii xoolal xoolal gaa yi seen siré seen matuwaay li nga wax yëpp a ngi ndogoy moom.